nga dafa daan da nga daan ñaari yoon doo doo daan raq day daan mag wala mënul ne da ngeen ñëw fayul fayul mag raq day daan daan la nekk ñaata 1 1 mu ñëwaat defaat ñaata 2 1 ñëwaat doolaat la beneen mi mi 2 2. 2 2 waaw nga roofaat la beneen mi mi mi Balla Gaye ñëwaat roofaat la beneen. mi mi si 3 bi la Ndiaye. kooku la ko yóbbu. bàyyi leen génn si 1 bi après ñu dem si 2 3 muy noonu ñu ngi lay a waaw waaw waaw kooku ma ngay daw kooku ma ngay daw. yaay booy ñu ngi lay yaay booy ñu ngi lay yaay booy waxal waaye yaay booy ñaari kàddu rek looy wax si sa mën. ndam rek la ñuy ñaan si yàlla incha ndam rek ndam rek. booy daa teel a installé. bañ ko waa yàqal ci barrière bi. ah. damaa wax. yaa ngi en direct sur Lutte TV. <laughs> bilaay ma wax caméra bilaay. mun wax Pam Ndiaye kooku baal nañ ko ko. waaye maa ngi seen fële si kaw daa mel ne saawa gi ñëw Pap kaay Pam Ndiaye kaay Pam Ndiaye kaay kaay côté bi kaay bi Pap Pam daa mel ne maa ngi seen saa kees ma ngay ñëw gaa ngi yot drapeau saa kees ma ngay ñëw liiru jaana ngi noonu moo nekk si kanam jëlal ma gaynde Njaay jëlal ma gaa ngay xorom gaa yi ngay xorom gaynde yi fa ngeen jaadu du foofu ay ca gaynde yi foo gaynde yaa ngoog jëlal ma jëlal ma jëlal ma jëlal ma jëlal ma liiru jaana ngi noonu oto baa ngi noonu saa kees ngi dugg si liiru jaan andi na 4-4 bu weex saawa ngi noonu toppal ma ko toppal ma ko toppal ma ko saa kees ngi noonu saa kees agsi na Pape demal tuuti ñëwal Sakess agsi na Sakess agsi na 4 la dugg ànd ak Lirou Diane ci kanam oto bee ngi ram di ñëw oto bee ngi ram di ñëw gaa ngi yor drapeau Guédiawaye zone bleue waaye am na beneen oto oto bu noir bi daa mel ne fala saa nekk Pam Ndiaye oto bi ñu topp Pam Ndiaye saa daa mel ne mi ngi si oto bi Pam Ndiaye daa mel ne. Pam Ndiaye daa mel ne saa kees mi ngi si oto bu noir bi Pape cadrel ma oto bi Pape jëlal ma ko saa kees mi ngi noonu agsi na saa kees agsi na mi ngi si oto bu noir bi. mu ngi noonu Sa ngi wàcc Sa Thiès mu noonu gaay noonu Sa mi ngi wàcc si Pape gaay xorom lañu yor ña ngay xorom Pape jëla xorom si gaay xorom nañu foofu Sa Thiès mi ngi noonu si rang bu noir bi gars yi dañuy wis xorom si ba pare daal di yaatal yoon bi bu yaatoo mu dooree wàcc si oto bi moom Sa Thiès mi ngi si biir yi dañ koo tente gars yi gars yi ngi noonu comme ni ma leen ko waxee rek restez connecté sur TV abonné partagé aimé da si am solo. bu leen fàtte di aimer bu leen fàtte di partager lépp li nga xam ne xew na fi jël leen ko toppal lépp lan leen di wan fii si Lutte TV mu noonu yéen a ngi gis géew bi ni mu yànjee ñu ngi noonu démb demaloon leen fee si Pikine wan leen fa lépp lu fa xew tey ñu fas yéene ñëw fii si golf daal leen wan lépp li nga xam ne xew na fi aussi mu ngi noonu mi ngi noonu gaay Sa Thiès léegi mu léegi mu wàcc pap ñëwal pap liiru jaan moo nekk foofu si porte bi di réglé gars yi mi ngi jaabante moom liiru wàllu sarax yi mi ngi si ndox mi mi ngi si ndox yi si sarax yi la liiru jànne maa ngi gis gaa yi ngi indi benn 16 bu rouge gaa yi ngi dugal benn 16 mi liiru nee na mat na nee na baax na kon waaw liiru nee na baax na liiru jaan nee ko baax na ñëwal Pape ñëwal oto bi day avancé waaw mi ngi wàcc Pape taxawal ñu xool saa ban côté lay wàcce saa gees mi ngi ci ginnaaw mi ngi si biir oto bi mi ngi si ginnaaw kon Pape nañ arrière oto bi day avancé ñëwal tuuti ñëwal ma tuuti ñëwal ma tuuti jëlamal liiroo ngi noonu liiru jaan a noonu liiru jaan a ngi noonu di réglé pap cadré pap cadré pap am njaay cadré cadré mu ne liiru noonu moo ngi réglé gaa yi nen na gaa yi arrière liiru jaan a gaa yi arrière pap mi ngi noonu waa ji fi Salif dem ma nga fa mooy ànd moom moo koy indi si làmb ja na bu kenn jaar fi Salif rek a fiy jaar loolu la wax nee na saakees rek fay jaar waaye kenn waru faa jaar mi ngi noonu taxawal ni pap Sa Thiès noonu di waaj a wàcc ngi noonu Sa ngi waaj a wàcc oto bi Sa Thiès a ngi ma loolu Sa Thiès a noonu di wàcc oto bi Sa Thiès noonu di wàcc oto bi Sa Thiès wàcc na Sa Thiès wàcc na yor drapeau Guédiawaye Sa noonu wàcc ak drapeau mu ngi noonu Pape mi ngi noonu Sa Thiès dugg si na Sa Thiès dugg si na yéen a ngi koy